waaw mbokk internet ci Bakkan TV maa ngi toog ak Pape Sarr maa ngi yow neexul woon de. loolu sama garaan nga loolu bul egg si foofu. <laughs> mais noonu. yow suma garaan nga bilaay yow suma garaan nga waaw waaw naa la mon frère. maa ngi lay fay bu baax Ibakan di la nuyu bu baax yaa ngi waajal lu lu lu jër. waaw maa ngi waajal lu tàng. dafa yàlla dafa def nag dama ñëw. Mhm. nekkoon ak rent DKR. waaw waaw ma déggoon ci lu bëri mhm. rent DKR. waaw. mun naa ne ne Pape Sarr njiit bi la parce que soo ne Pape Sarr njiit bi la rek. Mhm. frère Jimbo la. Mhm. frère yàlla def na avance dafa am kenn ku may waxal. Mhm. avance su rente DKR. waaw amul benn promoteur boo xam ménagère boo xam ne mos naa teg yow loxo. man maa doon dox combat yi. mu taxaw Jimbo ñëw fay ménagère bi. te mbër yooyu ñu tëgg amul kenn ku ñu si desel dara benn. dëgg la si ñii diw bi wax. ñaareel bi damaa ñëw euh, Ibba. don taxawal ay combat fekk yenn combat yu magi yi taxaw. Hmm. mais su combat yu magi taxawul won ñi man bokku na ci ñukoy teug tëgg te pare naa ko. dëgg la du deug limay wax ni tay amna ben sa mbokk journaliste yi ñaar. muy euh, Fadel. waaw Fadel mel Fadel ak euh, ki ki muy andal benen journaliste medun medun waaw amna na leen won hmm lim leen won tag tëgg na Sa Thiès. waaw lim leen won teug na sen hmm tek nañ ci sen seen hmm du deug kon lu ci dess mo ñu ñew jappalé ma ñu bayyi wax ji légui nak dafa am ay polémique ci samay mbeur yu ma teug ay xalé yu ndaw lañu Iba Kane doo gis ku ko fi def man ma fay mbeur 100000 may ko bologu tike bu 200000 cent mille commencement làmb ren mhm. ba fumay may grand combat képp ku dugg ci stade bi mhm. sooy duggaale di nga nga duggaale bologu tike bo xam pap sar mo la ko may pour 200000 billahi wallahi wa wallaahi li mako garantie mbeur garanti mbeur yi ngay teug wala kon ñoñu di dem di yak nañu bàyyi li ñuy def mhm. mbër yi ma tëgg boog bokk sama journée man ma signal leen jox leen sama avance mhm. te amul kenn ku ma si dogal njëkk mhm. xam nga fii da ngay waxaale ak mbër deux cent mille jox ko vingt cinq mille man képp ku ma jubóol ci quatre cent mille jox naa la deux cent mille jox sa ménagère amul benn ménagère buy taxaw fii gudduñ toll nii ne desal naa la dërëm mais lu tax gars yi bëgg gor say tànk mënuñu ko parce que xam na ni man su ma xamee ne yaa nga dugg samay affaire bul sonal sa bopp fii doo fi am jàmm. parce que suma dugg seen taxawal combat. xanaa da ngay dem leen di déranger loolu moo leen metti damay déranger si naka na dañoo foog ni. Mm-hmm. non dañoo foog ni. Mm-hmm. mais nag damay gërëm bu baax suñu père père ba. mu ngi maa ngi gis muy jàppale xale parcelles yi. maa ngi leen di gërëm bu baax a baax ba pare di ñaanal papa Sow moom it ak suma frère jamaïcain. Mhm. nañu bàyyi li ñuy def dafa am benn waay boo xam ne dama ko tëgg ku ñuy wax Ramdan Signor. benn booy. Mhm. Ramdan siñoor boobu maa ko indi ci làmb. Mhm. sur RTTKR. léegi dañuy jubal ci benn grand frère boo xamante ne. naan Pape Sarr amul date léegi Ramdan Signor laay wax. même bu ma jëlee fii date. date bi sori. man libéré naa ko. libéré naa Ramdan Signor mu bëree ba pare. doog ma bëreel mbër yi ma jox avance yëpp pour ma wane ni man yëg-yëg ak coono bi ma doon am ci mbër yu ndaw yi ba tey ci laay nekk dagg naa sama licence jox naa leen sama avance hmm. su ma daggee sama su ma su ma ñëwee ñu jox ma date hmm. mu leer ma date bi day dem six mois hmm. bépp mbër bu ma engage lii man maa ko wax ñëpp di ma dégg bépp mbër boo xam ne yaa ngi sama avance boo gisee promoteur na la tëgg ba sama dat jege nga ñëw bëreel ma kañ yow kañ nga kañ lan lan ngay waajal gars yi ban combat c'est que problème mooy dama defar sama combat yëpp ci ñetti fan Mhm. spécial ñaari spécial yi parce que dam si bëgg décorer baabooy. baabooy le roi baabooy waaw dama ko si bëgg décorer. Uh-huh. dégg mooy sama invité d'honneur. waaw benn benn bi nag beneen drapeau bi nag drapeau papis la. bu one x waaw maa ko uh-huh. fi indi de one x bet. ko indi si stade bii. billaahi wallaahi. mais li loolu rëy na de. xibet laay indi fii ci stade bi millions garaaw loolu du ay millions mais xibet moom. Ah. directeur bi moom di ngeen ko gis si stade bi. bu soobee yàlla kooku ay contrat mais mais bu ñu xamee foo jëm. non non dama ne man waaye man even kii de kii Iba Kane man tàkkosaan yu garaaw yi am Pikine yëpp dama koo gagné ci digg géew. continuel ak kan. damaa ànd ak Eumeu Sène Lac de Guiers. waaw taabu ma awma góom. damaa ànd ak Eumeu Sène Modou Lo ci digg géew. Uh-huh. damaa ànd ak Eumeu Sène ak Gris Bordeaux. Uh-huh. dama ànd amaabal de Baldé Baye Peul. yu garaaw yëpp yu tëj stade. Uh-huh. dam cee nekk. xoosuma mhm. xuriwuma kon nii li ñuy def nii mhm. nañu bul ñu sonnal seen bopp mhm. képp ku seetaan tàpp ci youtube bi dégg sama yaay li mu wax ci man si yeboo nga def ci man ndànk dama bëgg nag ñu jàppale ma ñaanal ma jéem maa bàyyi ñu jéem a fakkasal ba ma ci association promoteur ànduma ak benn promoteur sama sama làmb hmm. mooy yooyu ñuy jox journaliste pour ñu dugg nu mu tudd. accréditation. mbër journaliste du ko takk. fu journaliste jóge na ñëw dugg. doo def pay du ma def loolu. léegi nag jaaykat bépp jaaykat boo xam ne yaa ngi ci stade bi. Uh-huh. barki Seydina Mohamed nga ñëw di daan sa doole doo dagg ticket. loolu may naa la ko. Uh-huh. may naa leen ko ma woon leen. Uh-huh. man damay jaamu yàlla damaa yàgg topp. mais ban grand combat lay nekk ak ban bu ma am baax na. instant nii grand combat damay xaar tey. Euh, nu mu tudd bir euh, njàmbe ñëw mu jox man date bu ma am baax na xëccoowu ma xëccoowu ma dimanche xëccoowu ma dara man date pour ma leen di li ma leen di libéré rek ñooñu di wax di yàq dama leen di mhm. libéré mhm. xëccoowu ma nañu jël ba date yëpp jeex su date yëpp jeexee naa tëggaat déwén garaawul mhm. man garaawul ma loolu mais mais dañuy dugg ci actualité la waaw mais copain da nga sol ndox xanaa moo tax demoo Gambie la non dewuma Gambie non non man dewuma Gambie parce que tey ah. ñëpp gis nañu suma ñaari rakk ak ama ëmm ak ama waaw léegi si fan laa war dem ah man maa maay question fan nga dem dem man la les questions ama sama rak, ëmm sama rak. fan laa war a féetee fan laa taxaw ñu may nit ñi nga lu baax sax ñu wax looloo ma teree dem ak combat may taxawal fii mais mhm. déggoo ma ni est-ce que combat mhm. bii nii. Mhm. combat bi bañu ma ci sax dem kaso. loolu moom réunion nañ ko pikin. waxtaan nañ ko ñun ñu pikin may tuñu sax nit nit. jóge ci àll ba romb ñoog te setu Modou Lo. déedéet ah Pape nag barke Seydina Mohamed non lii du sport de. lii nekkatul sport. ah yow tamit sportif non nekkatul nekkatul sport. non non yow yaa gën a seetaan cosaan bokk jëf. yàgg na Edison ba ah. ñaata édition lañ fubal trois édition ah. munul egg te modlo la Modou Lo dëkk mm-hmm. Ama Baldé cosaan la dëkk ah. boobu cité police amagul dëgg la gis nga euh, match boobu mm-hmm. moo wuy si combat bi doo leen may ku sol tisatu Modou Lo mayetuñu nga ñuy romb ak tisatu Modou Lo maytuñu lolu wala tok ci ay grand place di sous-estimer suñu mbeur bi lolu jeex na pour nga pour ñom rek. Ah. ñu xam combat bi fu ñu toll. combat bi moy gëna raw boy booy ñaa Balla Gaye barke sayidina ma ta ma ngoy wax xalé bu commencé am juromi at. Mm-hmm. ba am 50 ans. Mm-hmm. fi bu midi na la fekk ci stade bi. kor xana am gaay di wax mo amada blessé day duggal médical ko ko fekk ngeen koy wax la ngeen koy def. non lolu graw lolu ñom nañu wax lu leen neex. Ah. nañu wax lu leen neex. mais loñu mëna wax ci lolu si bari non lolu non amabal dafa nekkul sax Sénégal. dégg nga. nekkul nekkul Sénégal Ama Baldé bi mu jógee Gàmbi ba tey ñun mënuñu ko gis du dëgg Ama Baldé ñàkkul fayda ñàkk fayda yooyu Ama Baldé bu gaañoo day dem duggal dañuy xam ne kii nii ngorom la mais nañ ko ñaanal jàmm. Mhm. deuxièmement bi maa ngi wax ci buur géwél. Mhm. buur géwél. waaw dafa déconné. Mhm. dégg nga. su yow de wax dëgg yàlla kenn du la gëreese. dëgg la ñoom ñëpp daw nañu ci waa jàmbaar yi. dégg nga ñuy ñëw di leen di dëkk di di di ñëw di analyser di wax leen neex. Mhm. ah man de avertir na la man suma nit nga. nan la Bour Gueweul dëkk Bour Gueweul nee na Ama Balde bii mu gis parewul pour daan Modou Lo. waaw Ama Balde bii ma gis parewul. Mhm. moom ak Fadam 2. Mhm. ñun ñun. vidéo yi adduna bi yëpp ko seetaan mhm. yaa ngi may dégg am na vidéo yoo xam ne ay maire yoo xam ne ñu ngi foofu ay saaga lañ ko saaga dañ koo dagg mhm. mais nag yooyu yëpp duñ ko man li ma lay avertir mooy mhm. di la ko ñaax comme suma frère nga sa tànk bu mu teg ko ñu fàllaay ma nag muy yow muy fadam dam lay ñaanal pour sa jàmm laa lay utal sa tànk bu mu tegu ko ñu fàllaay loolu mais combat bi dafa euh, non tànku tànku buur géwél laa la wax hmm. bu mu teg koñu fàllaay bu nekkee bëgg na jàmm hmm. teer naa ko wax pour ñëpp dégg képp kuy mbokkam hmm. man de wax dëgg yàlla du ko def dara mais dama koy dama koy aar tànkam daal bu mu teg koñu fàllaay xanaa coupe du monde ngeen di bëre non du coupe du monde lii combat bii ah. ñii xamuñu sax billaahi wal kitabi. de dégg ma wax baat bu ñaaw Modou Lo xam la la ñu sëkk mu ñëw fii ñu duma ko daan ko mais 200% cent dina ci waaw mais bu baax a baax deux cent yow boo egsee fii kay jeex na boo egsee ci Pape Sarr rek. waaw egg nga ci deux cent pour cent. <laughs> yaa ngi may dégg sax ah. Pape Sarr bii di wax ci Ama wala Eumeu Sène wala Boy Niang amul kenn ku ma bokk sa staff. <laughs> tey laa leen wax ci affaire u staff Ama Balde écurie Falaye Balde dañu doon def assemblée général <laughs> ñu ne ku bëgg bokk ci pos bi da ngay joxe dix mille. ma joxe sama dix mille. joxel ndam si yàlla si Samba Sarr dix mille. joxel Bayla sama rakk dix mille. ñu ñëw ber ñu. ñun membre yi man ne leen soxlawuma benn poste parce que bëgg naa su ma eggee kër Eumeu Sène ah, firi bu ma demee kër Boy Niang firi man boo bokkuma ci benn staff. affaire u staff bi ñuy wax Pape Sarr nañ ma ko teggil man Pikinois laa. ba léegi ragaloo combat bañ am ak violence bi. si biir digg géew man li may ragal mooy ci digg géew bi. ñu dóorante ñoom ñaar. si digg géew bi. Ah. man laa wax nii ba li wax nii laa wax nii. Mhm. si stade bi am na de. Mhm. mais pour lamb ji ñu bëre ko ci digg géew bi. Ah. su ma juumul gis nga gars yi nekk ci Modou di wax yëpp. Mhm. barke Seydina Mohamed Zouru Lamb ji du ñu topp Modou Lo. xanaa Serigne Ndiaye wala Papis ñooñu d'accord nañu. Mhm. mais waa jooju accusé Pokola pompe à gaz bi. Mhm. billaahi wallaahi watalaay man duma ma ko wax dara de mais na jàng athlète jàng daw. parce que Pokola bii nga tiiñal ni yow ñu gis la ci vidéo yi nga yor sa pompe à gaz man du ma fajal sama bopp de Pokola bi nga tiiñal noonu tuumaal ko si boo soo la yàlla indee fii estat ba yàlla tegal leen yi nga xool Pokola mu xool la si boo nga jàng athlète si nga yow nga jàng daw de parce que xam naa booy bi de da koo tuumal ne dañ koo daje ci féeri ba pap pap Pokola man dew ma Gambie mais ah. vidéo yi ah. laa amee samay preuve mhm. dama xool vidéo yi ñu gis pompe à gaz mhm. moom mu yor ko ci loxom moom waa jooju mhm. bii ne Pokola moo ko yore yaa ngi may def Pokola gis nañu ay vidéo yoo xam ne ay ndox ndoxu taw yooyu si féeri bi la doon sangoo di ko xëppoo xam nga yaa ngi may dégg ñu ma dégg ay yuuxu amaaye mais moom mii ne Pokola Pokola moo yoroon pompe à bi billaahi wallaahi si yeboo mu ànd ak parcelle yëpp bis bu ko yàlla fekkee fii ci arène nationale bi mook Pokola bu ko yàlla fekkee fii mook Pokola billaahi wallaahi watalaay ñun xam nañ ni ñun ñep kasso lañ jëm parce que li dafa ñaaw soy wax ci doomu jàmbur nang nga wax lula leer hmm. deug nga hmm. ay genné ay pompe à gaz ay genné arme la yor loxo yu weex tal ah hmm. xam nga xam nga la xam nga yor yor yor yor yor kiom nga taxaw nan ay pompe ba papi sa ngi nii mu ngi koy tuñal ne ko non mo do neew fa seetaan nañ vidéo mhm. am na fu mu doon wax ba tudd Modou Lo Papis moo koy dànkaaf woon ne ko day fen woon na ne ko da ngay fen mhm. mais mais gis nga ñoom ñaar gàmm. waaw waaw gën a oos ku gën a oos Ama Balde. mais gars man dinaa gis sama rakk naan ay Modou Lo di xool ay Modou Lo du ma ko sax seetlu. seetlu woo ko sax barki Seydina Mohamed ko seetlu. foofu xam nga moo fay bëree. Uh-huh. sama kan moo fay bëree. Uh-huh. muy waa kër Moussa Dioum waa kër Moussa Dioum ñu bëri dañuy xoolal dawal kabooy dawal kabooy génnee indo mais Moussa Dioum bii da su ma balaa may am lu may métti rek ñu ñëw fii di tuus tuusu Moussa Dioum boobu ci dundam la la la gënoon a jekk ci dundam ñu xam nañ nu mu demee de dëkkuñu foofu de waaye mhm. xam nañu coono yi fa Moussa Dioum jëlee mhm. bi fa xale boobu di gaañu si dëj bi foofu di fa daanu mhm. am na mbëri fii tuus tuusam ñëwuñu si dëj ba waa léegi damay révéler seen secret dégg naa yéen ngi waajal réunion bu doy waar avant combat incha allah incha allah ñu koy kan wax non dañ ciy nandal mooy dañoo dañoo ñëw pour grand place yep. Mhm. grand place yi nekk Pikine yëpp yéen a ngi da ngeen di wër yëpp la wër tali bu mag tali bees i ko taaf ak loolu interdit nañ fi tisatu Modou Lo ak ay taxaw fii di werante ay jotaay ay Modou Lo yooyu ñun Pikine lañ dëkk soo koy werante da ngay dem ba interdit nga wax ko fa loolu jeex na fii ci Pikine gudduñ toll nii jërëjëf Pape billahi combat bi ah. combat bi di nga xamante ne yaa ngi di ay dof lañu. dof du tëgg làmb génne ay centaine de loo leen tëgg mun naa ko tëgg. dof la loo leen tëgg sa association boobu noonu ngeen ne làmb xaalis. barki Seydina Mohamed bu génnee ci contrat bi bu ñëwee ma fay ko bëreloo ko barki Seydina Mohamed Modou Lo billahi wallahi watalahi bu génnee ci ñaari contrat mi. na ma booleeg suñu papa biram ñu ngi ma fay ko barki naa Mohamed bëreloo ko man Pape Sarr do bi ku nekk surtout Lobaat Fall la surtout Lobaat Fall dara jomb ma man dara jomb ma. yaa teewoon Ndakaaru. dégg nga trois cent vingt neuf personnes la yóbbu Màkka. bàyyi fi sept cent cartes grises bàyyi fi surtout Lobaat. dégg nga kooku si ay tànkam laay dox ko loolu bu ma amul lii. Mm-hmm. ñu wax ma ko dara jomb ma. rendez-vous maa ngi woo ñëpp fii baax na. <laughs> bii saf na de. sama gars maa ngoog.